sa kilifa yi ci teew yëpp tàmbalee ci ministre de l'Intérieur ak premier ministre ba àgg ci président Macky Sall di ko yóbbante ñu ne sëriñ bi ak cantam ak ngërëmam ndax ni ko sëriñ bi di seere te wax na ko Alphonse ci yow soo muy dégg mu sant ko gërëm ko ñaanal koy yàlla suñu doom gën ko dimbalee ci ci kanamam xamal ko xamal ko ni ne ko sant naa la gërëm naa la ndax cër bi mu sédd ci boppam ndax nit mën na seet weesu lépp lu muy dugg yëgal na ko te loo ko coow mu def ko ca loolu sëñ bi sant na ko ci digg boobu ci loolu biir mu ngi fi nekk itam yëpp yitte yoo xam ne masa ko ko wax tam jëm ci dëkk bi wala mu jëm ci njaboot wala ci taal bi lépp lu ci man def na ko lu ci mën tam jéem na ko ba sëriñ bi xam ne ne dem na ci def kàttan kon nag sëriñ bi nee na wax na ko kàddu mooy dégg nga ne ko dégg gi ma ne dégg ko déggoon Sëñ Tuubaa daal na ne lii a ko ne loolu nag jàpp ne kenn waru ko kon ñu ngi koy sant ñu gërëm di ko ñaanal ci mboolem li nga xam ne mas na ko defal Sëñ Tuubaa ci dëkk bi wala mu defal ko Sëñ Tuubaa jëmmal ko yàlla ko ci Sëñ Tuubaa fay lu ko jotam mu jëriñu ci àdduna jëriñu ko màggal moom neexutal ci bëri màggal ndax lépp lu ñu daanaka ñëw fa kon loolu dana def waaye nag ñu góorgóorlu ci yokk jéego yi ba nga xam ne nit ñi seen tuur ak wàññi ko ndax ndox moom fu mu àggee wéer dana fa dana fa yokk te dund bu sell yi fa yokk bâche mooy entreprise bi nga xam ne moo yor assainissement bu Touba ndax ngóor bi defoon na ci jéego ba tàmbaloon na liggéey bi. waaye liggéey bi it xaw naa yéex tuuti ñoom itam ñu gën ci sonn ñu gën cee def yitte ak taxawaay ndax Touba benn taw la taw ko wala ñaar wala ñett wésu ko waaye dëkk bépp màgg na loolu nag li ko indi mooy ndax bi nga xam ne dafa yéeg moo ko yóbbu ba ca des it mooy tënk yi nga xam dafa yàqu booy génn da ngay teg tax ngay teg am na loolu kon ñaar yooyu daal bokk na ci yi nga xam ne warees na ko gën a sonn. ñu gën cee def taxawaay fexe ba ndax wax nañ ne fi ñu war a compétent bi rawatina fu mel ne ngelaw yi ak ngelaw foofu wax nañ ne am na ay jafe-jafe yoo xam ne liy yëkkatiku kon loolu gouverneur ñu ngi koy fàttali nga soññu ko ñu def ci taxawaay ndax màggal bi di Thiès motu bi ñaari weer kon fan yu waa Sénégal itam wax nañ ne ñu ngi ci ay jéego xam naa dañ ko leeral ak tënk yi itam tënk yu yàqu yi. ñëw nañ fa ñëpp wax ne ñu ngi ci waajtaay bi war koo tàmbali loolu itam ñu gën koo yokk def ko équipe bu bari ngir kër yi mën a jàll ndax bu fekkee mbedd yi dafa taal ko mooy nga xam ne moom la ñu ko tàmbali am na ay résultats yu am solo ndax bari na foo xam ne nab bi moo fa doon yëkkati tamit mu wàcc waaye li ci mat a gën a fàttali mooy day mel ne boo tàmbalee booy soo kër si Abdoulaye kër si tàmbalee kër si Bachirou bu foofu la tàmbalee boo demee daamaatam bari na si ñëpp suñu ñoo xam ne daanaka génn nañ si liggéey jël nab bi noonu la tasaaroo ci dëkk dootul daanaka xaw defaat lu ko ndax bu ñu ko defut rek xam naa ren ñu génnoon ñu génnoon ci ay nit daaw ren ñu génnaat dana métti ndax bari na lool ci tari bi ñoo xam ne ku ci jaaxle rek dana ñëw ci man leneen ñu def ay woro yu ñu jeex ñu ne am nañu loolu fukki kër yoo xam ne seen kër génn ñu daanaka mënatu ma ko lim kon jàpp naa ne laaj na ñu defaat ci gëstu yu gën a xool yoo xam ne dana tax liggéey bi gën a wàcc ndax bu ñu doxaatee tuuti dana gën a métti ndax napp bi dem na ba dugg na kër si Tuubaa dugg na kër si Abdou mel na ni muy yokk jéggi na leen na leen